bu ñu amee lu leen jaaxal dañ koy jéem a saafara par de façon dégradée graduelle façon graduelle dañuy ut benn pexe bu boobu sottiwul ñu ut bu ko gën a dëgër bu boobu sottiwul nag ñu ut beneen bu ko gën a ñaw bu yooyu yëpp sottiwul nag ñu ne la solution finale xam nga solution finale moom Hitler moom la defoon bi muy taxawal Reich ah, di bëgg yëkkati la race aryenne teg ci kaw bëgg a àdduna bi am ay xeet ay nit yoo xam ne ay yahud lañu woon mu ne woon ñoo ñoom c'est des races impures il faut ñu éliminer leen la leen doon marqué di leen ber am ah, amuñu àq yoo xam ne ak yelleef yoo xam ne amuñu joon accès ñu leen yooyu yëpp ay moyens la di leen jéem a xool ñoñal ak di leen parqué di leen berek yi ak di leen xañ ay àq ak yu bari waaye dafa àgg foo xam ne bu mu demee ba gis na ñi liy solution bi mooy yooyu yëpp doxul li ci solution mooy la solution finale solution finale mooy pexe pexe bi nga xam ne mooy pexe bu mujj mooy faagaagal leen rey leen ñoom ñëpp yahudi yi Hitler loolu moo nekkoon solution boobu foofu la mag Sall tooy la solution finale contre Ousmane Sonko mooy rey ko mu dee projet bi moom taxaw na bëgg-bëgg bi joxe na ordre yi waxoon naa ko fii depuis le mois de mars ci biir armée bi ñenn ñi d'accord ñu won ba indi na ay jaxasoo ba gis nga amna ñum teggi teg ñeneen ñu bes ñum teg ñu bes ñom pare nañu pour appliquer lolu tax ci contrat bobu la leen tege moy ñu fagaagal ko rayal ko Ousmane Sonko ak lepp lu ko lolu nak euh waxon nañ ko mo gën xamoon nañ ko si ngeen ciol yi am ci violence yi partout rek ñi ngi fexé ba xex xulo dara di deret ji nga xam ne mooy sang bi sacré nag bi nga xam ne moom lañ bëgg mu tuuru mooy sang bi nga xam ne moom la leen seen féticheur ak seen xërëm yi laaj mooy deretu Ousmane Sonko waaw deretu Ousmane Sonko moom lañ soxla moom lañ bëgg mu tuuru loolu seen xërëmkat yi seen fétiche yi leen ko laaj moo tax ñu ngi def lu neex pour mën koo jot ci yaramam pour deram pour deretam tuuru ndax lii mën a taxaat ñu toogaat fi mooy deretu Ousmane tuur deretu Ousmane Sonko tuuru bu bari wala ruu usmaan Sonko dem seen féticheurs yi ruu Ousmane Sonko lañu soxla ruu gi wala deret ji ndax xam nañu ñoom ci li ñu nekk ak ci li ñuy dox. Euh, duuduka boobu ñuy wax nag ñu bari ñu ngi wax duuduka duuduka duuduka waaye duuduka moom dañ koy utiliser moom sañu te bañ daal du moom sax du duuduka ci boppam moom mooy def lii du moom moo am fit bi du moom moo am programme bi déedéet. moom benn bouquet missel la benn pion la bu ñuy jouer bu ñuy jël utiliser ko te sañul bañ ndax léppam makki Sall la bu dul makki du am dara yëkkati nañ ko jox ko alal jox ko lépp mu dëkk Casamance waa Samb moom ci moom lañ bëggoon a jaar du ko def du ko def Sané Casa du ko def Joola Pire am na yoo xam ne du ko def moo tax loolu def na wuñ leen ko loolu bu ñu ko def dañu ut ku sont kax muy duudu kax ñu jox ko ko waaw kooku mën na loolu ñoom mën nañ loolu waaye ku sant joolaa pire pire pire mënu loolu Benoît Sambou du def loolu ki sant Sané du ko def ñu sant ñoom duñu wax ñun ñun waa Casamance lañ xam nañ Casamance bu baax sommes de Ziguinchor waa on connaît bien la Casamance Sénégal ay xeet yoo xam ne lépp loo bëgg def lu muy war muy trahison muy lu bon muy kii dafa am xeet yoo xam ne foofu nga koy utu ci ñoom dañ koy nàmp ci seen maam yi du dëkk ci xeet boobu la bokk da koy nàmp moo tax bu ñu demee ba bëgg a teg loolu gis nga woowuñu kenn ci waa Casamance yi dañoo ut ku mel ne Doudou Ka moom la ñuy jox rôle bi pour mu jouer am ngeen ay preuve yu bari ci ne dañu bëgg a situation bu doy waar pour faagaagal Ousmane Sonko bi ci mujj mooy barki démb gis nga dem nañ ba kër yaayam gannaaw loolu attaqué woon nañ leen fi ci biir campagne bi ne du ngeen dugg Ziguinchor loolu weesoo dem na fi inaa ko waa di réunion semaine passée ñu dalaat ci kawam. demoon nañ kër yaayam ci campagne bi nangu ji fa ay pay ay ay fiche d' inscription au parrainage barki démb ñëwaat na Ziguinchor di ñibbi aéroport bi gis nga la fa xew keroog bi muy ñibbi ci aéroport bi avion bi muy jël avion boobu moo indi ñoom Doudou Ka avion bi wàcc ñoom Doudou Ka avion boobu la Ousmane ko jël pour dellu si Dakar la fa xew yéen ñëpp xam ngeen keroog ci avion boobu Madiambal Diagne mi ngi woon ci biir avion bi ànd ak Doudou Ka ñoom ñëpp ñu wàcc te du Madiambal Diagne am na ñeneen ñu ci nekkoon ñoo xam ne ay renseignements généraux lañu ci biir avion bi parce que am nañu information yëpp ay tireurs d'élite ak ay services secrets sénégalais ñu ngi woon ci avion bi wàcc ñoom ñëpp li xew kër Ousmane Sonko après ginnaaw Ousmane Sonko bi mu demee Dakar mooy li mujj démb attaque 2 heures du matin bi kër yaayu Ousmane Sonko ba mu am fuite fuite boobu mu am moo leen yoole mais préparé woon nañ seen ay plan yëpp. pour def massacre ci kaw yaay Ousmane Sonko ma jàmbal ak ñoom ñëpp loolu moo leen fi indi woon ci man pour ñu mën ko relayer mais plan bi dafa échoué parce que dafa am ay fuite yu génn ci programme bi ci ñoom am na ci ku rocce ku génn jaay affaire bi bi mu ko jaayee gars yi tamit jël seen matuwaay xaar leen ci kër gi nga xam ne fu la ñu waroon a dem pour rey ñëpp massacrer leen. leen doon rey ba noppi jaarale ko ci turu MFDC ni rebelle yi ñoo dugg ñëw ci kër kër googu rey fa ay nit daw dugg. plan bi ñu am nag mooy bu ñu ko defoon ba noppi dañuy tëb miiru HLM la dañuy daw rek dugg tëb ci biir aéroport bi sécurité aéroport bi du Ka ak ñi nekk ci biir aéroport bi gendarme yeeg militaire yi nekk ci aéroport bi di garder aéroport bi ñoom ñoo naroon a sécuriser assassin yi dañuy rey def li ñuy def massacre daw dugg tëb miiru aéroport bi ndax soriwul HLM Némara ak yaay Ousmane Sonko fi mu dëkk miiru aéroport bi soriwul c'est à ku xam Ziguinchor xam HLM Némara programme bi moo doon rey leen assassiné leen daw dugg jéggi miiru aéroport bi dugg sécurité bi nekk ci biir aéroport bi militaire yi couvrir leen nga xam ne kenn dootul dugg parce que foofu kenn du fa dugg c'est une zone sensible aéroportuaire donc ñoom ñoo leen couvrir bàyyi leen ngemb leen génne leen exfiltrer leen ut vol spécial dugal leen ci génne leen foofu yëpp. ba pare nag tuumaal nag MFDC ne waaw ne rebelle yi ñoo dugg ñoo def loolu mu nekk coow loo xam ne bala ñu ko liggéey du du sotti Mariama Sarr ba léegi waxaguñu ko ko rey. ak ñeneen ak ñeneen 14 booy yi fi deewoon ba léegi xamaguñu ku ñu rey régime la boo xam ne mën nañoo rey waaye mënuñoo leeral ñoom doxuñu pour ñu lën pour leeral kan moo rey ñoom duñu trouver assassin kii rey duñ ko Sénégal ba Macky Sall faloo ba léegi ñoom ñooy rey li lay xamal ne ñoom ñooy rey mooy amul kenn ku ñu fi jàppagul ne moo rey duñ tëjaguñu fi kenn ku rey te pour pourtant li fi dee ki nit kenn xamul nu mu toll loolu li lay li lay firndeel ne kon ñoom ñooy reykat yi te sëñ Muntaxa ta ko waroon ko moom Muntaxa Muntaxa Mbàkke mi naan wuyu rey nit kër kër tiim Ousmane Sonko di ko wax Muntaxa li mu waroon a wax mooy Macky Sall bàyyi sa rey gi ndax yaa ngi rey nit ñi te boo dee safara nga jëm mais loolu Muntaxa du ko wax Macky Sall Muntaxa Mbàkke mënoo nekk ci am réew yor réew mi lu mat fukki at presque yor police gendarmerie budget yëpp nga am ko yor armée yor yëpp yor renseignement yi ba noppi nit ñi di dee te mënuñu ne diw moo leen rey loolu su amee rek kay rayaate mooy ki war a leeral war a leeral ñi rey wala jàpp reykat yi kooku mooy reyaate Macky Sall mooy reyaate moo tax duñu fi jàpp kenn loolu mooy li am. Macky Sall ci boppam mooy assassin bu mag bi mooy commandité meurtre yi am ci senegal ci wàllu politique yëpp Mariama Sarr ki Ousmane Sonko ñu bëggoon a rey ak yooyu yëpp moo nekk ci ginnaaw duudu kam yi wax deful dara amul fukki fitam mënut wax sax bay xalaat di dal ci ko Ousmane Sonko moom mënut a wax ndax bu ne yii balaa pare nga dem màkk ñëwaat duudu amul fit ñëpp xam nañ ko. Macky Sall ci boppam mo nek ci ginaam ak ay équipe de renseignement ak ministre de l'intérieur ministre des forces armées ñom ak renseignement yi ak le chef d'état major général des armées bi ñu ak non pas chef d'état major général de l'armée mais le chef d'état euh, euh, le haut commandant de la gendarmerie Moussa Fall ñom ñoo ñëwee ak Macky Sall ñoo teg seen deal pour assassiner Ousmane Sonko paré wuñu nak bàyyi wuñu de bàyyi wuñu li ñuy essayé yépp mi ngi échouer ba ba léegi yalla gi ko dimbali mais amna ñu nak plan. bu ultime benn plan boo xam ne boobu moom du may am nañ boo xam ne moom la ñuy voyager envisager nii te boobu du may te mooy bu ñu mënta jot ci Ousmane ko rey ko ci biir ful yi mbooloo yi muy dem ni dëj yeeg yooyu di fa dem bu ñu ko mënta fay mënuñu mënuñu piéger oto mu explosé wu mënuñu saboter oto mu accidenté bu ñu ko mënta def avion bi muy jël di dem Ziguinchor avion bi la ñuy piéger loolu nag su boobaa moom rek du avion bi dina daanu ñi ci nekk daañu daanu ñoom ñëpp daañu dem moo kooku mooy seen plan ultime piéger avion bi xam ne ci moom la Ousmane Sonko di demee Ziguinchor tout le temps avion bi la ñuy piéger mu daanu te dina te daañu ko def jaral na leen ko plan yooyu yëpp envisagé nañ ko Ousmane Sonko moom ñoom mënuñu envisagé ñoom xalaatuñu ñoom réew mi ku nekk mën na ko yor réew mi mën nañ ko jox ko ab mën nañ ko jox Abdou Mbow mën nañ ko jox Bougane mën nañ gerte bi loolu moom pare nañu pour Sénégal gépp gépp seen sëriñ ci pare nañ pour ànd ñoom ci loolu Macky Sall pare na pour rey pour Sénégal gépp tàkk waaye jamais Ousmane Sonko du dugg ci palais bi Macky Sall di génn loolu moom Macky Sall bakkanam la ki teg quitte même à mu daaneel avion bi Ousmane Sonko dem Ziguinchor dana ko daaneel te lii man maa waxul waxantuwuma nag waxantuwuma mécanicien yi réparer avion yi entretien yi compagnie bi moom avion bi vol bi def Dakar Ziguinchor mécanicien yi ci qui ki mom compagnie bi inspection yi def ci avion yi moteur bi tout ça entretien yi nañu gëna redoubler de vigilance redoubler de tout ça daañu saboter moteur avion bi avion bi dina jóg ba nekk en altitude en zone de croisière normale daanu lii man maa leen ko wax Ousmane Sonko dana nekk ci biir accident la ñuy wax toujours yéen sénégalais yi xam nga yéen moom buñ nee nit dee na yàlla na ko yàlla yërëm du ngeen xalaat autopsie du ngeen xalaat def enquête du ngeen xalaat gi dee déedéet Ibrahima Fall dee na démb ak ñe ak ñaari garde du corps ñu àndoon suul nañ leen tey pare nañ ci. yàlla yéen yàlla yërëm rek ngeen ciy teg ci yéen du ngeen def enquête du ngeen toppatoo dara Ousmane Sonko mii ngeen di wax bu bu subaa bu duggoon ci avion daanu li ngeen wax ndogal yàllaa ko def ñoom bu baax nañu koy reyee dañu koy rey rey boo xam ne kenn du leen tuumaal ndax lan dañ naan ndogal yàlla la accident wax rek Sénégal moom xam nga avion bu daanu accident la oto bu oto ngeen du mënu leen a comprendre ne accident mën nañ ko provoqué mënu leen a xam oto mën nañ ko piège ba leen a xalaat ne avion mën nañ ko piège ba loolu yéen du ko xalaat parce que du ngeen ay nit loolu mooy seen problème moo tax ñoom dañ koy def liggéey bu set avion bi la ñuy daaneel Ousmane Sonko dee ñu ne avion ba moo amoon problème moteur bi kërë kërë du mujj fenn gisagu leen fi am na am na hélicoptère bu fi daan woon y' a deux y' a quatre ans cinq ans bu leen bu leen Côte d'Ivoire abaloon jóge Ziguinchor am ñu ci dee don benn Ivoirien ana enquête ba fu mu mujj am na beneen bu daan woon côté tambaax xaw côté côté Kolda yooyu benn hélicoptère armée bi fu mu mujj ana enquête yi y' a jamais de coupable. coupable kii moo def lii kii moo def lii bi kii la kii ma waroon réparé pilote bi moo def lii déedéet du ngeen ko dégg moom bi yoon bu ñu rey Ousmane Sonko du moom rek moo dee de ñi nekk ci avion bi ñëppay dee ñi ànd ak moom ci avion bi pilote baak ñëppay daanu parce que daañu saboté avion bi saboté boo xam ne pilote bi du mën a manœuvrer avion bi ba téye ko foofu lañ jëm ak moom parce que ñoom jaral na leen lu ne xa xamuñu yàlla xamuñu seen yoon nekku ci seen ay milliards rek seen ay privilèges te mi ñu téye bëgg koo def seen entreprise bopp di ci daaju ci ay milliards sen bakkan bi lañ ci teg loolu Macky Sall wax na leen ko sequ leen kook ay nit ñi jiite réew mi duñu ay nit parce que yéen tamit du ngeen ay nit loolu moo tax Ousmane Sonko du très vigilant wax naa ko benn waay bu ko jege barki dem na li ngeen sécurité Ousmane Sonko dafa amul sécurité li ngeen tuddee sécurité du ay mbër ak ay ponkal yu am doole loolu du sécurité la sécurité c'est le renseignement la sécurité c'est pas ay mbeur yu taxaw du ça c'est la sécurité du siège juif am ay ponkal yu entre yow taxaw kooku ça fait peur ay sànnekatu xeer yi way ak du gars yi nga xam dañ lay fekk nga taxaw ñu bëgg la attaquer loolu ay mbeure koy paré loolu mooy mais la la la sécurité c'est pas ça la sécurité d'un homme d'État comme Ousmane Sonko et tous les hommes d'État du monde ce sont des professionnels yo xam dañuy am ay radio talkie-walkie di mëna communiquer à distance radio sans fil dañuy am ay gilets par balle dégg dé de dañuy am ay lunettes de visionnage ak ay lunettes yoo xam ne day am caméra dégg nga dañuy am ay chaussures yoo xam ne dàll yoo xam ne boo ko tegee ci mine sax dàll bi du explosé wu dégg nga dañuy am ay tenues adaptées yooyu yëpp dañ koy am sur le plan matériel mais sur le plan aussi fonctionnel ah dañu war a nekk ñoo xam ne dañu am ay outils d'aide à la bonne décision mooy leen dañu war a am ay renseignements le renseignement

di waxante seen biir takk ay oreillettes des professionnels voilà j'ai un américain un ami américain boo xam c'est un mastodon dans ça ay ñoom dit que ay sécurité Mohamed Ali c'est un ami américain à moi à chaque fois je lui envoie les vidéos d'Ousmane Sonko day xool rek quoi mu ça c'est pas de la sécurité qui à tout moment on peut le tuer les gens ne sont pas professionnels kooku il était prêt il était prêt à venir au Sénégal former la sécurité d'Ousmane Sonko équiper les gens, tout Ousmane Sonko était aux États-Unis en 2017. J'ai appelé la responsable de PASSEF en 2017 pour lui demander que Ousmane Sonko ne def tout ba ma Je me remplace j'ai appelé Aïssa Touré à l'époque Je suis venu. may Canada le gars était prêt à payer son billet d'avion quitter Atlanta ñëw New York fekk fa Ousmane Sonko ñu ne ma day dem Canada le gars ma l'américain me dit je suis prêt à atterrir au Canada partout dans le monde Ousmane Sonko nekk pare pour dagg sama billet tout ça dem fekk ko fu ko defal ko un schéma de sécurité Équipe ses hommes former tout ça ba sang ko suba kenn wuyuma ma ci. li ngeen tuddé ay mbërëke yoy du sécurité ça c'est pas de la sécurité xamu leen enjeu yi ak projet bi fi mu Il y a trop de trop d'amateurisme dans ce qu'on dans dans ce qu'on fait y a trop d'émotion gratuitement lañ koy def former équipement de haut niveau sécurité boo aux normes standard du monde C'est un professionnel Mohamed Ali Puff Daddy Ils ont tous yoroon sécurité C'est un professionnel américain yi le ko mais Sénégal Quand ku ne da nga jaay pouvoir à l'époque, je ne pouvais pas avoir accès Ousmane Sonko tout ça koo ci woo tu ko quand tu ci le message de l'automne, tout ça il y a trop de voilà c'est ça mais li tout de sécurité ponkal yi mbër bien mais ñooñu américains vous da ngeen a gis ñu ay non la sécurité c'est le renseignement c'est l'information c'est la prévention la sécurité doo bàyyi bonne dal que ko ngay pousse da ngay anticiper le dégât da ngay anticiper le le le le danger par les renseignements par des recoupements infiltrer les milieux des am renseignement dans l'armée dans la gendarmerie dans la police du côté. traiter di am des grappes d'informations, yu y am des centres de décision Ousmane xam Ousmane Sonko de ne décider dina nous nga une sécurité sécurité quelqu'un c'est un ça doit être un homme de renseignement la sécurité doit ay une affaire de renseignement collecte de l'information traitement de l'information analyse de l'information synthèse de l'information et prise de décision ça c'est un processus tu collectes les informations en vrac il y en a beaucoup nga recouper les, traiter recoupement tout ça renseigné tout ça xool ndax deugle tout ça xool say contact tout ça traiter ko bo traiter ba noppi da nga segg li ci bax mooy def la synthèse ne li information bax baax la bii baaxul bi baaxul nga tek fee bi bax nga valider tek fee bo jëlee yi baax bo le ko nag bo noppi da nga juk ci benn bo xam moy bi ci gëna woor bobu nga jël nak jël décision par rapport à ça pour parer au danger c'est ça la sécurité d'abord mais la sécurité c'est pas ça c'est une sécurité dissuasive sécurité la sécurité, mais c'est pour la dissuasion mais la vraie sécurité c'est une sécurité c'est diffuse c'est une sécurité qui ne dit pas son nom Donc, on sait xam da On ne di pas. les gens ne jën nañ ko jàppee ci géej ci mbaal dañuy sànni mbaal mi jën yi sëxatoo kërë kërëm ndekk ñu ngi ci biir mbaal mi te yëguñu ko loolu mooy sécurité jël bi buy dugg ci mbaal bi du ko xam